pour te souhaiter bonne, bon et bonne chance. Lola, comment ça va Salut papa, j'espère que tu vas bien, c'est Lola. C'était juste pour te dire que tu me manques qu'il faut garder la tête haute, faut être fort. On sait que tu vas arriver, très bien se passer. Et euh, tu me manques énormément, on espère que tu vas euh, venir bien. Je Mais toi, on a vu ta vidéo où tu pleurais, j'ai failli pleurer aussi parce que c'est pas, <laughs> c'est pas trop c'est papa. On t'aime porter que tu vas bien. Moi c'est Mommy et c'était pour te dire vraiment bonne chance et bon courage pour tous les concerts que tu as parce que c'est vraiment dur de rester éveillé pendant des heures et des heures. C'était pour te dire bon courage pour tous les concerts que tu as et bonne chance pour rester éveillé. Bisous, je t'aime. Coucou papa, c'est Mommy, j'espère que tu vas bien.